li neex ba jàll peex mu ngi ci seneweb point com suñu naataangoo yee nekk ca seneweb dañoo dem ci kër Wally Ballago sekk dem ci kër Sidi Diop le centre di peuple moo toog Wally Ballago sekk ñu koy laaj ci Sidi Diop naan ko ana looy wax ci Sidi Diop ana lan nga koy ñaanal Wally Ballago sekk naan maa ngi koy ñaan mu gudd fan loolu te am xewal maa ngi koy ñaanal itamit nag fi ma àgg nii mu àgg fu ko raw mbaa sax mu am leneen loo xam ne dana ëpp li ma am Wally Ballago Seck ci jamono ji muy wax loolu le la ko journaliste yi daal di dogale ne ko xam nga ne mu ngi lay déglu jamono ji le ci lañ daal di jël seen téléphone déglu leen Sidi Diop ñu ne ko Wally Ballago Seck mu ngi lay dégg yaa ngi dégg Wally Ballago Seck waxtaan leen ñaar ci bisu korite gi ginnaaw si loolu la la Sidi Diop jël téléphone bi Wally Ballago Seck itam jël téléphone bi ñoom ñaar ñuy waxtaan Sidi Diop naan ko mag ji grand frère maa ngi lay baalu àq li ma waroon moom moo dawal sama wata ba ci sa buntu kër daal dugg ci sa biir kër taxaw baalu la àq ngir yow yaay sama grand frère yaay sama idole yaay a yombalal jëf ju ni mel Wally Ballago Seck itam di ñaanal Sidi Diop naan ko yow sama rakk nga sama lépp nga ñoo bokk géew bi kon nag lépp dafay rafet Wally Ballago Seck ak Sidi Diop waxtaan wu neex ba kenn ku ci nekk di tooñ sa morom Sidi Diop mooy ko njëkk naan ko noo def ak ginaar yi Wally naan ko dafa am horaire bu may lekk ak horaire boo ne du ma ca lekk Sidi Diop naan ko man ak yow ñooy waxtaan xamante nañ bu baax a baax kaa ñu wax rek li fi nekk Wally Ballago Seck ak Sidi Diop waxtaan bu neex la ñu waxtaan bay tex texi di reetaan ak a tooñante dem nañ sax ba leen di laaj featuring bi ana kañ lañ koy mën a xaar fii ci Sénégal waali ne leen featuring boobu le munta yombee noonu le diggante Sidy Diop ak Waly Ballago Seck mënagu leen dégg featuring bi mbaalu ko may da nga di yëkkati koppar yu takkoo takku koppar yu baree bari mën a financé featuring boobu le ñu yóbbu ko ca arena bu ndakaaru njaay ba a xaj waaye fu dul foofu le di ko tooñ nan ko Waly Ballago Seck boo lekkee ci ginaar yi ba sa biir fees mélodie bi nga woyee ci fi nga xam ne Momadi ci rëginta boobu le mélodie doo ko mën a woyee ndax ginaar mooy fees ci sa biir bi ñoom ñaar ñuy tooñante ko waxtaan bay reetaan loolee mooy am ci seen téléphone démb gi maanaam korite démb Wally Ballago Seck ak rakkam di Sidi Diop wane nañu ne benn lañu Wally di ko dénk naan ko maa ngi dénk sama bopp dénk sama bépp moroomu artiste ñun ñëpp ñoo nekk benn bu ñu dara jaral ñu yàq mbaa ñuy wax lu yàq Sidi Diop itam ca na mu jeexalee ay kàddu moo di ne àdduna du mën a yàgg ba ma yëkkante ay kàddu yu yàq mbaa ma jëf-jëf yu yàq ndax Wally Ballago sekk sama grand frère la man fan sam la may première fan bi nga xam ne daf may topp di ma bàyyi xel Wally itamit di ko tooñ naan ko Sidi Diop sama produit la Sidi ku xam Sidi Diop xam ne Wally Ballago Seck mooy ku ko ci musique maanaam sama produit dëggantaan la ñoom ñaar nag jàmm janga ci seen diggante ñoom ñaar leneen lu ca am itam ñeneen ñooy ñi ko ca dugal ma dem ci feneen ci beneen korite goo xam ne fii ci Sénégal la Cheikhou Kouyaté di capitaine bu équipe nationale Cheikhou Kouyaté borom ñaari galon yi démb gis nañu ñaari soxnaam bu jekk ba tubaarkàlla daal di koy wane génn seeni vidéo di ko sinap di wane seen sañse di wane ni def nañ ba mu baax ci korite 2022 gi daal di wane seen mbégte wane seen contentement ci weeru koor bi nga xam ne ci la génn ak jàmm woor ko ci jàmm jàmm ak salaam ba jeexal ko beneenu korité ci kër Wally Ballago sekk la ñuy delluwaat fekk fa soxna Aydara mi nga xam ne moom itamit wane na boppam ci sañsa wane na boppam ci taar wane na boppam itam ci teraanga gi nga xam ne séq na ko ak Wally Ballago Seck ak ña nga xam ne ay am di jàmmam lañu ay mbokkam lañu ay dëkkandoom lañu ay soppam lañu ay fansam lañu moom it di soxna Aydara def na sañsam bu baax te rafet beneenu korité ca Madinatu Salaam lay jawale foofee mooy kër soxna Ayda Diallo bu Cheikh Béthio Thioune soxna Ayda Diallo mu Serigne Saliou moom it di soxna Ayda Diallo gis nañu korité ga mu waneeti boppam moom itam def korite bu ànd ak classe korite bu ànd ak élégance soxna Aïda Diallo defee na ko na ma ko baaxoo defee ci at mu jot def korite goo xam ne lekk yaak naan ya lépp ne jaleñ sañsa itam taaliba yi nekk ci wetam di ko bravo moom soxna si ak waxtaan ak moom di jàmm seen tekk baalu ak ca fi nga xam ne moom moo di ca Medinatu Salaam kër soxna Aïda Diallo korite bi dàq ci korite yi mooy korite ak Pape Diouf leaderu génération moom it di Pape Diouf nañ ci biir këram ba ambiance biir këram ga muy lekk laax ak njabootam di xéewlu ci xéewlu korite ak njabootam dem ba mu yàgg sax ambiance ba gën fa neex maanaam pecc maak woy wa gis nañu sax Pape Diouf di pàkkar ñi di feccal soxnaam sa ngir bég gi nga xam ne bég na ko ci moom ngir li nga xam ne moo di xéewal gi mu ko taajal mbégte gi nga xam ne ànd na ak moom Pape Diouf wane na ko bu baax a baax a baax ci ay tànkam maanaam pàkkar ñi la def ba mu jeex tàkk Wally Ballago Seck ci lay dellu këram def na benn surprise boo xam ne daf koo jagleel way juróom bu jigéen di jaaga mi nga xam ne moom moo ko indi ci kaw suuf jaaga soxna nay coon sekk Wally Ballago Seck daf ko defal ab surprise boo xam ne surprise bu neex la ci xol surprise la boo xam ne surprise bu neex a defal way la ci bisu korité bi xam ne ñëppay dem feetoo ko ci seen biiri kër yi maanaam toog ci seen i wetuk njaboot toog ci seen i mbokk def ko ak ñoom ak lu ci mën a xew korité ren jile lu baree baree bari fës na fii ci Sénégal bu ñu demee ci li nga xam ne moo di julli korité ren gi imam yu bari yi wax nañu ci dëkk bi ak ni mu yàqoo wax nañu ci jikko yi yaar xawwante sutura gi nañu góorgóorlu ci lu baax lu mu ndaw ndaw ndaw bu ñu koy xeeb Serigne Mountakha Mbacké moo itam bu ñu ko xeeb ginnaaw bu ñu góor góorloo ci suñu diggante suñu borom bu ñu góorgóorloo ci lépp loo xamante ni ni daf nuy wattandiku seytaane ak la mu am gannaaw bu ñu góorgóorloo itam ci suñu digganteeg suñuy morom nañu góorgóorlu itam di topp lépp lu baax lu mu ndaw ndaw ndaw bu ñu koy xeeb nañu ko topp ba teg ca suñuy loxo waaye tamit nag lépp lu bon nañu koy wattandiku ba mën ca waraw ba keroog ñuy dugg bàmmeel loolee mooy li am solo waaye leneen dut loolu le keneen ku nekk ci leneen su boobaa lu la ca fekk na nga jël Serigne Mountakha Mbacké dénkaane na kaddu yi gàtta gàtta gàtt waaye kaddu yi ëmb solo yu baree baree bari kaddu yoo xam ne ku ko déglu te jëfe ko daa ci jëlee ay njëriñ yu takkoo takku moom la xalif général des mourides dénkaane ni ki démb ci korite gi gannaaw julli gi nga xam ne Serigne mu Moussa Abdou Khadre moom moo ko daal di jiite ci grande mosquée bu Touba ba foofee la ñu ko daal di le amalee noonee la ko defee ci kërug Laayeen yi noonee la ñu ko defee ci kërug Tidiane yi noonee itam la ko defee ci kërug Ñaseen yi fépp foo taxaw nañ ko démb niki altinek démb ji daal di ciy wax ay message yu am solo jagleel ko nguurug Sénégal jagleel ko askanu Sénégal jagleel ko képp kuy jullit jagleel ko képp kuy citoyen lépp loo xam ne luy jariñ réew mi la wax nañu ci ba noppi itam soññee ci ngir ñu daw taxaw ci lépp loo xam ne itam luy yàq réew mi la ñu daal di koy wattandiku borom réew mi di président Macky Sall ci grande mosquée bu Ndakaaru Njaay fa lañ ko seen mu daal di def ab grand bu bam bu weex sol koppatem bu weex takk maskam bu weex dem julli ba àggal yëkkati ay kàddoom moom président la na tamit nag naataange ak xéewal ci réew mi niki noonu le la daal di soññee askanu Sénégal xamal leen ni leen nañu nekk benn te boole xol yi nañu jéem a fi naka la def ba benn le suñu lépp joxante loxo mën a liggéey suñu réew loolu dong la ñuy xaar ci ñun kon nag nañu ci jéem a taxaw moom président de la république niki démb ci korite gi ginnaaw ba ñu naan suba la korite ci la daal di bàyyi lu toll ci ñeenti téeméer ak lu teg ci ay détenus maanaam ñoo xam ne caabi leen féete woon ginnaaw président la république may ne ñu daal di delluwaat ci seen i yitte doxiwaat i yitte demaat ci seen biir kër nemmeekuwaat seeni njaboot maanaam bàyyi leen totalement dootuñu duggati ci nungu siin nga lañ leen doon toppee lépp lépp dañu koy daal di dindi ci ndigalal njiital réew mi jërë ngeen jëf maa ngi baalu ak sénégalais yépp di leen baal ak te di dellu itam di ñaan suñu borom taw fee xéewal gu takkoo takku nekk ci pooseeg ci xol yi ci xel yi ak ci yaram yi yàlla dëppale ñoog jaamoom gi ba keroog ñuy sangoo suuf te moytu ñoog seytaane ba keroog ñuy sangoo suuf jërë ngeen jëf bu ñu fàtte ni itam Wally Ballago Wally Ballago Seck ma nga ca Milan mani la ndaw lu rëy spectacle sur spectacle mani la la Faramareen toog na ay at yu bari demul foofu la ci Italie bi nag ma nga ca Milan mani la ku ci bëgg billet nimero bi ci suuf dong moo ko desee woo leen ko gaaw def seen réservation dina neex dina yëngu Feeling Dakar TV ma nga ca biir jërë ngeen jëf ba suba ak jàmm